الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون انتهى موسم الحج وانقضت قبله خير أيام العام وفي ذلك عبر وخبر وهذه وقفات مع تلكم الأيام فهل من معتبر أو هناك من مذكر من مذكر بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki julit yi jamonoy aj jeex na la ko jiitu woon ci ay xéewal ak yiw yu ñu yàlla defal mooy juróom ñeenti fan weeru tabaski nga xam ne moo doon fan yi nga xam ne moo gën ci fan yi yàlla bind mu ne wa fi dalika ibarun wa xabar weer yooyu nga xam ne bëccëg yooyu nga xam ne ñoo paase ànd ak seeni weer ànd ak atum aj loolu mbokk yi warta jeex noonu rek daal di romb waaye xelu war na cee nekk jël ci xabaar tamit war na cee nekk wa hadihi waqafatun ma atilkumul ayam war nañoo def ay taxaw seetlu ci bés yooyu nga xam ne ñooy jàll rek bés bu nekk dinu romb ci semaine yooyu nga xam ne ñooy jeex rek yeneen di baamtuwaat weer yooyu di dem rek di ñu romb at yooyu di jeex rek war nañ cee xalaat fahal min mutabar ndax am na ku ciy xelu aw hunaka min mudakkir wala ku ciy fàttaliku taxaw seetlu def ci ay jàngit ci bëccëg yooyu di romb rek ak ay waxtoom ak ay bisam ak ay weeram ak ay atam yooyu di jeex rek mbokk yi ndax war nañ cee jàngat wala waruñ cee jàngat ndax war nañ cee def ay taxaw seetlu wala waruñu koo def ah kay taxaw seetlu bu njëkk alwaqfatul ula taamalu ayuha al ixwa fi mururi al ayaam wa fi taaqubi duhur wal awaam fama an tabdaa sana hatta tantahi bokk julit yi ñun ñëpp ñu noo war a ànd taxaw seetlu ci bëccëg yi romb jamono ji dem at yi jeex suñ nee at jeex na rek beneen at daa di ñëw suñ nee jant fenk na rek beneen bis daa di xëy daa di fenk suñu kaw suñ nee weer wi dem na rek beneen weer daa di ñëw wa ma yahillu xilaala shahr hatta yanqadi du nu nekk di séentu benn weer lu dul weer woowu daa di dem ñu toog di séentuwaat beneen barki démb noo ngi doon séentu koor mu dem ñu taxaw naan tabaski romb na noo ngi xalaatati tam xarit bu dem rek beneen daa di ñëw wa ma yahillu xilaala shahr weer du fenk ata tanqadi ba weer woowu daa di dem jant du fay sànq fenk wa ma in atlaa sams yowm hatta taxib jant du xëy fenk rek lu dul balaa ngoon mu daa di sow wa ma yuladu min mawlud hatta yakbur wa yashib liir du xëy juddu tey lu dul ay waxtu ay weer ay at rek mu daa di bijaaw après daa di faatu wa fi hadihi ibratun lana loolu mbokk yi xelu xelu war na war nañ ko cee xalaat war nañ cee xelu war nañ cee yeewu ne ñun ñii kat am nañ ci ibra lana bi inqidaai ajalina wa intihaai amarina ne ñun ñii kat ndeke war nañ cee xelu ne léegi sunu at yi daal di jeex léegi sunu dund daal di jeex ni yooyu di jeexee su fekkee xam nañ ne kon léegi sunu dund jeex boole koog at yi ñu am kon lu nuy jural mooy fa nastaid li mufaaraqati al asdiqa wal asxaab kon nanu waaj nanu préparé xam ne danañ tàqalikoo ak sunuy mbokk danañ bàyyi ay xarit danañ bàyyi ay soxna danañ bàyyi ay doom bàyyi ay jabar bàyyi mbokk bàyyi dëkkandoo bàyyi àdduna jëm àllaaxira ni yépp jeexee ni bés yi jeexee semaine bi jeexee ko noonu weer wi jeexee ko noonu at wi jeexee ko noonu bu dem beñeen ñëw ndeke noonu lan war a jàngatee ne nu ni danañ jeex ñu daal di préparer xam ne danañ bàyyi sunuy mbokk bàyyi sunuy xarit bàyyi sunuy am di jàmm bàyyi sunuy dëkkandoo daal di sori soppe yi jëm ca borom bi tabaraka wa taala sunu borom ne kullu nafsin zaiqatul mawt wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama faman zuhziha an innar wa udkhila aljanna faqad faz wama alxayaatu dunya illa mataau lxurur suñu borom ne bakkan bu mos dund rek bés dina nga ñëw di nga faatu mu ne fan lañ leen di matale seeni jëf yowma alqiyaam di ngeen di ñëw àdduna liggéey alaxira lan leen di faye ku dem alaxira ñu sori la safara dugal la aljanna yow texe nga faman zuhziha an innaar wa udxila aljanna faqad faaz léeg-léeg nga dégg kenn ci mbokk yi mu ne man bu ma dundee ba ñu sama doom yi am liggéey rek ma texe léeg-léeg nga dégg ku ne sama doom yi bu ñu sëyee rek ma texe léeg-léeg nga dégg ku ne bu ma tukkee rek texe déedéet texe nekkul ci yooyu ci benn texe fan la nekk yàlla nee na faman zuhziha ani naar wa udxila aljanna faqad faaz texe moo ngi ci yàlla sori la safara dugal la aljanna foofu la texe nekk borom bi nee na wa mal xayaatu dunya illa mataaul gurur yëg leen ne dund àdduna nekkul lu dul bànneex buy waraati loolu mooy alwaqfatul ula taxaw seetlu bu ñu war a taxaw seetlu ci bëccëg yi di dem yeneen di ñëw alwaqfatu saaniya ma at taat mbokk yi bëccëg yi dafa war a nekk bëccëgu jaamu yàlla fa inna laha mawasim wa laha awqaat tasrufu fiha wa yu- wa yazamu ajraha wa qad marrat al asharu thumma ayaamu tashriq فما كان استغلالها فمن كان استغلالها غنم وفرح ومن أهملها فسوف فاتته ولم يربح ñaareelu taxaw bi mooy bëccëg yi bëccëgu topp yàlla la woon mooy bëccëg yi ñu paase fukki fanu tabaski ak ayaamu tashriq ay waxtu la woon yoo xam ne bëccëg yu tedd la woon ci yàlla yu ñu waroon màggal jaamu yàlla fukki fan yi romb ak ñetti fanu tabaski yi ci tegu fukki fan ak benn fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñett képp ku ci taxaw woon jaamu yàlla ci bëccëg yi ñu romb kooku day am na bénéfice kooku day tonu na waaye koo xam ne daf ci moyoon yàlla bëccëgu tabaskeem nekkuloon lu dul fecc ak naan ak fo déglu musique njaaloo ji naani sàngara def lu bon kooku de perte na ndax yàlla aari sere na bakkaar bi noos ba nga ko defoon dem na benn boroom xam-xam dafay misaal mooy yàlla neex bi mu neex ak laps de temps bi muy neex ci yow rek jàll bi muy jàll waaye yow mi ko def da nga koy def ba pare daal di fàtte def nga bakkaar yàlla mu ne bind naa ko yéen fàtte ngeen ko nee na neexitu bakkaar dafay jeex bakkaar bi des mu nekk ni ñun ñi doon lekk yàpp ci tabaski nga xam ne waxtu wi noo ngi toog fii ci jumaa ji fii nga toog nii kan moo sentir ne lekkoon naa yàpp ba mu neex ci man neexit baa ngi des ci sama but géeg sama biir bi neexit bi dem na ba nga suuree la jeex amma bu fekkoon ne bàkkaar la xar moo sàcc dem rendiku lekk nga ko jeex na neexit bi jeex na bàkkaar baa ngi fa nag di la xaar yowmal qiyaam mu ne jaamu yàlla tamit noonu la mel dafa metti waaye tiyaaba bi day des coono bi dem ki kër këri woon tabaski bëggoon a am tiyaaba jaamu yàlla kër këri ba am njabootam lu ñu lekk mu teg ko ci charte yi mu tabaski ngir yàlla xoola coono boobu mu defoon yëpp tey coono bi dem na waaye tiyaaba baa ngi foofu di ko xaar su fekkoon ne bàkkaar la aussi bàkkaar ba ma nga fa toog neexit ba nga ko defoon neexit bi dem na moo tax mbir yépp jarul sonn li jara sonn mooy la fay des te mooy tiyaaba amma bàkkaar danga koy def mu dem nga yaakaar ne jeex na fekk jeexut yàllaa ngi lay xaar ayuhal muminuun yéen way gëm yàlla yi bëccëg yooyu ku ci jaamoon yàlla am na bénéfice tonu na mu nekkoon fukki fanu tabaski ak ñetti fan ayaamu tashriq képp ku ko jaamoon yàlla kooku ganima wa fariha wa man ahmalaha fa sawfa faatathu ku ko sàggane woon jaamu ci yàlla perte na ndax bis yooyu dootul ñëwaat wa rubbama tamanna rujuaha liyastaxilaha walakin hayhaat hayhaat léeg-léeg doomu aadama ay bëccëg romb ko bëccëg yu am tiyaaba yu rëy daal di koy romb tiyaaba bu doy waaxat romb ko moom doomu aadama boobu mu sàggane ba tiyaaba boobu dem mu bëgg a jaaraat ci ginnaaw ne naa ko amaat ah munutul nekk mi ngi mel ne jaan romb la ba dem fi jaan jooju romb nga ñëw jël yat topp ci direeku bi di dóor loolu yaram bu metti rek nga ciy jële bëccëg yi ñu romboon mbokk yi muy bëccëgu fukki fanu tabaski ak ñetti fan ya ca tegu woon mooy mardi mercredi jeudi yooyu la ñuy wax ayaamu tashriq kooku loolu moo lay wan ne aj jeex na loolu woon mooy wan ne tabaski jeex na lan moo des nga préparé waat yeneen yu nekk ci kanam amma yooyu moom boo ci jaamoon yàlla dem na tiyaaba bu réew bu rëy yu mag romb na la moom la yàlla di wax ayyaamam maadudaat ay bëccëg ñetti fan la yu am importance yoo xam ne ab jullit daf ci waroon jaamu yàlla fa man yadri fa rubama la taud illa wa qad wusida turaab aw asaabahu marad aw ubtuliya bi amrin yasrufuhu an il ibad an il ibada kan moo lay won ne kan ñun ñu nekk fii tey julli si juma kan moo nuy wax ne tabaski bii di ñëw dina nu fekk kan xam naa ay nit yoo xam ne daaw maak ñoom ñoo julle ndee woon fii tabaski ren ñoo ngi ci biir suuf ay nit ñoo xam ne nii laa doon taxawee ci xutba di leen tiim ñu toog tabaski ren fekk ñu leen fi ñu ngi ci biir suuf alaxira lañ tabaskiyee kan mooy nuy wax ne man wala yéen ñi toog fii déwén dinañ fi nekk tabaski kon ku jaamul woon yàlla ci fukki fan yi perte nga parce que fukki fan yi moom yàlla xam di nga ko fekkewaat wala doota ko fekkewaat allahu aalam loo bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg fekk mbir yi ci loxo yàlla la nekk looloo tax lu ñëw rek defal bul xaar ndax xamoo ndax di nga ko fekkewaat ki perte moo naan non man suba dinaa ko fekke loolu moo nu sonal suba dina ma fi fekk julli wu ma tey mais suba dinaa julli tey tardé naa waxtu wi mais suba duma ko tardé dinaa góorgóorlu wooru ma tey suba dinaa woor defuma tey suba dinaa def kan moo la wax ne suba dina la fi fekk benn buur dafa génn di doxantu bi mu nekkee ci àll bi dox ba sonn daal di xiif toog ne indil leen ma lekk ñu indil ko lekk gi daal di ubbi lépp teg yëf yu bëri torop ci kanam mu ne xool leen fii ci biir ci ci ci àll bi koo xam ne dina ñëw toog ak man lekk mu wéttali ma gars yi daal di wàcc fekk benn waaye ci benn garab bu njaganaayoo ay daalam di nelaw ñu ne ko kaayuyu mu jóg dox ba yegsi buur bi ne ko man de maa la woo mu ne ko loo may doyee mu ne damaa bëgg nga wéttali ma ci sama lekk bi parce que damaa wéet mu ne ko am naa ku baax am naa ku baax ku ma woo kooku laa wuyu mu ne ko man ak yow ñoo nekk fii man ak yow noo fi nekk kan moo ma gën a baax ku la woo mu ne ko yàlla moo ma woo ma wuyu ko mu ne ko yàlla ci lan la la woo ba nga wuyu ko mu ne ko yàlla moo ma woo bisu tey ma woor mu ne ko waaw dogal tey comme da ngaa woor tey da ngay dog xoolal lekk bi ni mu neexee soo dogee tey suba nga woor mu ne ko ndax mun nga ma assuré ne suba dina ma fi fekk yow yaay buur bi de waaw ndax yow mun nga ma assuré ne suba dina ma fi fekk su fekkee mën nga ma assuré ne suba dina ma fi fekk ma woor su fekkee mënoo ko nag bàyyil ma dem ci ki nga xam ne mën na ma assuré ne suba dina ma fi fekk. mu ne ko wax dëgg yàlla mënuma laa assuré ne suba dina la fekk mu ne ko kon bàyyi ma ma dem ci kooku mu daal di jóg jël ay dàllam delluwaat ci garabam nelaw daal di continuer kooram maa nit dafa war a góor góor lu jaamu yàlla xam ne bëccëg bi bu la rombee tey wóorul ndax suba dina ñëwaat ci yow guddi gi bu la rombee wóorul ndax dina ñëwaat ci yow fan yi bu la rombee xamoo ndax di nga ko fekkewaat kon góorgóorlul mbokk jullit yi ci li nga xam ne moom nga fekkee nga góorgóorlu ci jaamu yàlla tabaraka wa taala ndax xamoo ndax dana ñëwaat ñu bari ñu nag ñoom ñoo fi nekkoon daaw tabaski tey ñoo ngi ci biir suuf am na ci ñun ñoo xam ne jàppoon nañ ne tabaski ren dina leen fi fekk ndeysaan fii nii ci are jaal mbaay ci foofu ñu naan ñaari boulangerie bi su tabaski am na koo xam ne dafa julli si ànd ak imaam julli si tabaski dem war a rey xaram daal di dee ñu indi ko dugal ko ci morgue bi ndeysaan bisu tabaski julli na ànd ak imaam ñu ne imaam rey na mu dem këram di waaj a rey xaram daal di daanu dee ñu indi ko dugal ko ci morgue bi fan la eggalegee tabaski bi alaxira doomu aadama dafa war a waaj boppam préparé yenent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la waxoon sahaaba bu mag ba ne ko ya abdallah igtanim xamsan qabla xams préparel juróom balaa juróom ñëw sababika qabla haramik wa sihatika qabla saqamik wa ginaaka qabla faqrik wa faraagaka qabla sugalik wa xayaatika qabla mawtik rawaahu xaakim wa saxaxahu al albani yenti waxoon na sahaaba bi préparel juróom balaa juróom ñëw fi nga nekke ndaw jaamul yàlla balaa ngay màgget fi nga wére jaamul yàlla balaa ngay feebar fi nga amee jaamul yàlla balaa ngay ñàkk fi nga amee temps jaamul yàlla balaa ngay soxla ixwatal iman ñaari taxawaay yoo xam ne taxaw seetlu yu ñu war a def ginnaaw tabaski bu mu paasee ginnaaw ba aj jeexee ginnaaw ba ayaamu tashriq jeexee ñetti ñeenti taxawaay yu ñu war a taxaw ñaar yaa ngoog noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu defal ñu sabaat aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaam ala man ursila rahmatan lil alamin بصيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا الوقفه الثالثه مع العباده وذلك ان لها اثرا في القلب بالارتياح وعثرا في النفس بالانشراح ونورا في الصدر ودياعا في الحشره قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ñetteelu taxawaay mbokk yi ànd ak jaamu yàlla maal ibaada dañu yëg ne dana war a jaamu yàlla ndax lin nu fi indee mooy jaamu amul leneen doomu aadama bu amee xel ab jullit su amee xel xam liñ ko fi indee mooy jaamu mu jaamu mu jeex loolu lan la fi indee wa maa xalaqtu l jinna wal ins illa li yacbuduun jaamu googu anna laha asaran fi l qalb dafa am jeexital ci sa xol boo jaamoo yàlla rek yëg dara ci sa xol léeg-léeg nga dégg ku ne man dama am doful iman c'est parce que jaamu yàlla nga bàyyi man du ma yëg bànneex parce que jaamu yàlla nga bàyyi qad aflaha al muminuun alladina hum fi salaatihim xashiun su fekkee yaa ngi jaamu yàlla noo ko war a defee rek wallahi da ngay yëg jaamu yàlla neex gi mu neex bolom lax dari nee na lissalaati nuurun azim tushriqu fi qulubi almusallin waaye wala yanaaluhu illa alxaashiun nee na julli dafa am lu muy neex dafa am lu muy saf ci xol day feeñ ci xolu jullikat yi waaye nee na mbokk yi loolu kenn du ko mun a am lu dul koo xam ne buy julli dafay toroxlu kon ixwatal iman jaamu yàlla dafa am asar fil qulub dafa am lu mu war a jeexital ci xol waaw bu fekkee yaa ngi jaamu yàlla amul lu mu mën ci yow jaamu yàlla bi mënul laa tere def lu bon jàng nañ ci alquran yàlla mu ne inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar yaa ngi julli yaa ngi ci munkar yaa ngi ci fahsha seetaatal sa bopp yaa ngi woor yaa ngi ci fahsha yaa ngi ci munkar seetaatal sa bopp seetaatal jaamu yàlla bi seetaatal julli gi seetaatal zikri yi seetaatal lépp looy def ci jaamu yàlla contrôlé waatal xoolal ndax def naa ko nu ma ko defee nu ma ko war a defee ndax alxuraan moo wax dëgg julli dafay tere nit def lu bon alxuraan moo wax dëgg kon su fekkee yaa ngi julli ba léegi nekk ci lu bon xoolaatal ndax jaamu yàlla boobu am na asar fil qalb jeexital na ci xol bi ndax war na koo mën a téye waaye wa asar fi nafs war na jeexit ci bakkanu nit ay bakkaar jaamu yàlla war na ko fekk daal ko fi dindi ba mu set bale ko ndax loolu la ñu sant loolu la ñu wax waaye du nekk loolu rek bin siraax kii jaamu yàlla bakkanam dafa war a yëg ne bakkan bi set na qad aflaha man zakkaaha wa qad xaaba man dassaaha sunu borom jalla jalaaluhu wa aza kamaaluhu mu ne wa nuuran fi sadr dafa war a nekk leer ci dënn ki nga xam ne moom mooy jaamu yàlla wa diya fi lxashr waaye dafa war a nekk leer lumière ëllëg yowmal qiyam buñ la suuree ci bàmmeel sa bàmmeel daa di leer jàng nañ alquran yàlla mu ne munu dekk ñi doon jaamu yàlla seen kanam yëpp dafay leer mel ni ay projecteur lañu leen takkal suñuy dégg siraat dañuy gis ni buum bi daal di ciy tegu naafiq yi dañuy xool borom lamp yu leer yooyu yawma yaqulu lmuminu munafiquna walmunafiqat lillazina amanu unzuruna naqtabis min nuurikum e waay xool leen ñu ndax seen lumière yi ngeen am ba mën a leerlu daal di jàll xool leen ñu ndax lumière boobu ñun ñu mun cee gis lan la leen yàlla di wax qiila rji'u waraakum dem leen àdduna ngeen uti lumière ñooñu nga xam ne dañoo am lumière ba dara lëndamul ci seen yoon ñooñu sax dañuy ñaan yàlla pour yàlla yokkal leen lumière bi mu gën a leer na rabbana atmim lana nuurana kon jaamu yàlla dafay nekk lumière ci biir bàmmeel su fekkee doomu aadama jaamu na yàlla comme ni ko yàlla sante jaamu yàlla boobu dafay nekk lumière ci moom mbokk jullit yi waaye ndax foofu rek la fay yem ak moom sunu borom nee na képp ku def lu baax moo xam góor nga moo xam jigéen man amila saalihan min zakarin aw unsa wa huwa mumin loolu mooy sart bi ngay jëf bi ngay jaamu yàlla na fekk na fekk yow dëgg-dëgg gëm nga yàlla tabaraka wa taala wa huwa mumin ne fala nuxayannahu xayaatan tayiba yàlla dina ne dinaa la dundal dund bu neex dinaa la fay fay bu rafet fay bu gën a rafet bi nga doon def fa hada waadun sadiq ayuha alahbab min rabbin karim bi ann almumin alladi yacmalu salihat sawaun kana rajulan aw imraa أن له حياة طيبة وعيشة حنية في الدنيا وأن له الجزاء الوافر في الدار الآخرة فأين من يعمل أحبابي يلا مونو ديك ديك يلا مونو ديك فهذا وعد صادق منك ديك بدق كان مونو ديك من رب كريم كبور بسل بور بباخ buur bu am barke moo ñu dig mu ne képp ku gëm yàlla góor la wala jigéen ku jëf yàlla nee na dinaa la dundal ci àdduna dund bu tey alaxira dinaa la dugal aljanna këru xéewal waaw yàlla bu nu digee war nañu gëm wala waruñu gëm fa hada waadun sadiq yàlla moo ko digee waaye lan la wax ku jëf man yaamal kon fa aynal man yaamal kon ana ñiy jëf ñi jëf la yàlla ne dinaa leen fay fa ayna man yuqbil ana ñiy jege si fa al aamilu saalih lazatu dunia wa anisuha képp kuy jëf ci àdduna yàlla nee na dinaa la fay te dinaa la wéttali kooku mooy alwaqfa alsalisa alwaqfa arrabia ayuha al ahbab taxawaay gi ñu war a taxawaat seetlu yaa xaadimal jismi mooy kii liggéeyal yaram كم تسعى لراحته أتعبت نفسك فيما فيه خسران dafa am ci ñun ñoo xam ne seen yaram la ñuy jaamu seen i jëmm la ñuy jaamu seen i bànneex la ñuy jaamu ñooñu nag war nañoo bàyyi xel taxaw seetlu gi ne li ñuy def amalu leen benn njëriñ képp koo xam ne yaram rek ngay jaamu àdduna ngay jaamu bëgg-bëgg ngay jaamu xoolal tey ku doon jaamu tabaski doon jaamu xaru tabaski dem jënd benn xaru un million un million deux cent dem jënd mbubu jasinaire boo xamante ne cinquante mille ñawlu grand mbubu boo xam ne boo ñëwee ci jumaa ji ñëpp mën nañ cee dugg bi tabaski bi jeexee léegi léegi looy doyee mbubu boobu ana xar boobu nga doon tiitaru xar bi nga jënd un million deux cent cinquante mille wala deux millions biñ ko rendee ak xar bi ñu jëndee quarante cinq mille francs est-ce que ñaari yàpp yi mën nañ leen a xàmmee bi bi ñu toggee yàpp yi ba mu ñor ba ñu teg ko ci boole ñu ne kaay leen añ xar bi ñu jënde woon un million ak bi ñu jënde woon cinquante mille ana ana ana ràññee bi kon nanu day talu jaamu yàlla bàyyi topp aduna bàyyi topp aduna ayuhal ahbab aduna daf nuy tardeel te dafa yàq sunu jaamu yàlla te day langaamu ci ñun ba lépp lu nu war a def duñ ko def ci lu baax dañuy def ngir bànneexu bakkan benn waay day tabaski ren comme ren la am jabar ren la am soxna at yu nekk da doon tabaski ren mu daal di takk soxna bi mu waree war a ñëw takk so rey rey xar bi magam bu jigéen daal di koy woo téléphone nakaw ah léegi nag yow da ngaa war a jee yee salaat sa yéene da ngaa war a yee salaat sa yéene def tajdiidul imaan ndax da ngay tabaski ndax soxna si wala da ngay tabaski ndax yow wala da ngay tabaski ngir yàlla dëgg la yow da nga daan tabaski yow rek amoo woon soxna ren takk nga soxna nga war a rey xar bi est ce que kon sa xel du ne maa ngi maa ngi tabaski parce que takk naa soxna tabaski yàllaa ko moom sunu jaamu yàlla yëpp yàllaa ko moom loolu mooy al ibada ibada yàllaa ko moom doomu aadama waru ci am dara yow waru cee feeñ sunu problème nag mooy sunu jaamu yàlla yëpp ñun dañ ciy feeñ suñ ci feeñul rek du baax suñ ci feeñul du dem suñ ci feeñul doo ko def doo ko war a def ni nga ko war a defee te yàlla moo ko moom lu yàlla moom joxal yàlla yaa xaadimal gis yow mi jaamu yaram kam tas ali raxati ñaata ngay dox pour sa yaram nekk ci jàmm pour nga féex at abta nafsaka fi ma fihi xusraan yaa ngi sonnal sa bopp loo xam ne ëllëg yowmal xiyaam da ngay perte aqbil ala nafs wastakmil fadailaha fa anta birruuhi la bil jismi insaanun mottalil ngëneel yi tax nga mat yow day li tax nga nekk doomu aadama du jëmm ji kese waaye ruux bi yàlla booleeg yow la màggalal yàlla yow jullit ci say jaamu yàlla fexeel li la yàlla tabaraka wa taala sant guddi ak bëccëg nga taxaw ci yëgal ne ni bëccëg yi jeexee noonu la sa dund di jeexee comme yëg nga da ngay jeex war ngaa préparer waaw comme yëg nga da ngay jeex war ngaa préparer mbokk yi ñun ñëpp dañuy jeex ana ñi ñu fi jiitu woon katabal mawt alal xalq fa kam falla min jays wa afna min duwal ayna man saadu wa saadu wa banaw xalakal kull fa lam tuxni al qulal ñun ñëpp dañuy dee ñun ñëpp dañuy dem lu ñu fi dajalee lu ñu fi mën a am dañ ko fi bàyyi dem ci yàlla ni bëccëg yi jeexee ni doon séentu weeru koor mu dem ñuy séentu tabaski mu dem ñuy séentu mu dem ñuy séentu mu dem noonu la ñuy demee ñu nit kon nañ waaj waaye xam nga ni kan moo am bénéfice mooy ki nga xam ne bi muy dem yóbbaale na ay tiyaaba kan mooy ki perte mooy ki dem yóbbaale ay bakkaar musibbe fulbe caggal yettude allah e julde nelaaɗo men muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam xutba men hannde wonno waqafat baada idil adha daranaade daranɗe nayi caggal julde taski yawti anden no taski yawtiri ni ko noon yawtirten enen ne te canki en coynotono lewru koorka eɗen wiya joni kooren joni kooren joni kooren koorka ari yeehi nde koorka yeehi holko kuccanɗen eɗen wiya joni taski ara joni taski ara hoto taski woni inena yaha noonu ñalawmaji ɗi ɓenniri noonu jammaji ɗi ɓenniri ko noon hitande nde ɓennirta ko noon ɓennirten enen ne jehen to allah tabaraka wa taala en wi rawane en darinoma ɗo wone men ɓe ganduɗa ko ɗo ɓe jooɗino e yeeso men eɗen eɓe keɗo hutba taski rawane kono hikka tawani ɓe ɗo eɓen laakara ɓe jeehi to joomiɓe allah tabaraka wa taala beele enen ne dariɓe ɗo hande ɓe beele onon jooɗi ɓe ɗo janggo en tawete kadi taski ɗum ɗon allahu alam koye juuɗe allah woni ko ɗum ɗon woni heɓloɗen ganden jammaji ɗi no ɓennirta ni ñalawmaji ɗi no ɓennirta ni sahaaji ɗi no ɓennirta ni waktuji ɗi no ɓennirta ni hitaaliji ɗi no ɓennirta ni enenne ko noon ɓennirtani joni ñalawma ara wiye hoto imam woni ɓe wiye imam yehi lakara joni ñalawma ara wiye hoto kaari woni kam ɓe wiye kanko kay hanki wonno ñalawma makko mi wi on joni joni e e- e khutba o e olof wonmo anduɗa o juuli taski e oɗo taski o julde imam ha imam hirsi o yeehi galle makko omo hirsa o yani o maayi o nanna e morgo o ñamani e tew jawdi ndi wallahi l asim son yeehi namɗore ɗo e, ɗo wiyete ñaari boulangerie ɗo o julde imam nde imam noddoya wiya kaari ma yo wi joni joni min salmodiri kono ɗum ɗon ala haajo a haajo allah ala hen mi yimo joni joni mi salminimo joni joni min potti joni joni kanko holko heɓimo ɗum haajo allah ala hen allah faalun lima yurid allah la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun ko neɗɗo wiyete an holko tagi waɗɗa kono allah hay goto wiyetama holko tagi waɗɗa te an kala ko waɗɗa janggo ma darde mbiyeɗa holko tagi waɗɗa kono allah hay goto susa darnude mo wiyama holko tagi waɗɗa ndax kanko ko wela ko ɗum o waɗata kon accen haqqillaji ñalawmaji si wiyama ɗiɗo ñalawmaji ina moƴƴi ɗiɗo ñalawma ko ɗiɗo ñalawmaji ko tiyaba dañete hen ko baraji dañete hen tinnoɗen e ɗiɗon ñalawmaji heccanke en wiyen no korkanan ara ko ñalawmaji moƴƴi yeehi walla yahani wiɗen taskinan ara balɗe sappo e taski ko ñalawmaji moƴƴi yeehi walla yahani wiɗon ɗiɗo ñalawmaji tati caggal tas taski ko ayamu tashriq ɗi ɓenni ko hanki gasi hajju gasi taski yeehi ayamu tashriq gasi a ko heddi eɗen kadi soyno haran muharram ko noon ñalawmaji ɗi arirta ina yaha ñalawmaji ɗi ara ina yaha ko noon enen ne gurdam men gasirta ko noon jahirten enen ne allahuma arina alhaqa haqan warzuqna ittiba wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahuma ya musabbitu alqulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصحداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله